waaw siyaar na. sant nii rek. naka coono yi. waay taxale rek ngeen def. waaw kii dee dem da ah? kii waaw moo fi téye. waaw. yee boo fayee léegi nga moom ñaata lay génne. kii de pour bañ a waxaale bu gudd ah. mu joxee téeméer ma jox la cent mille francs. ay ah, cent mille francs. waaw waaw yow baax nga de. defal lu baax waaye xam rek dama ko soxla quoi sam benn tubaab moo jógee Europe xam nga teewoo deux roues bu ñu doxantoo xam nga da nga soxla moo tax ma la joxe cinq cent mille nga bëggoon loolu xam nga huit cent lay jar li ma yor laa lay wax man deux cent mille laa yor kii hmm. deux cent da fay bàyyi ma dégg démb deux cent cinquante jox ma ko jox deux cent mënoon nga ko jaay nag waaw waaji muy ma pour waxaale bañ a gudd quoi xam nga mu ci jóge sànq sànq jox ma deux cent cinquante deux cent cinquante rek la ma ne fa la mën a yem waaw léegi amul problème xam nañ def waaw mën nga ma xaar ma xool sama rak bi

waaw dëgg la waaw voilà léegi man dama doon jënd si benn dëru dëru waaw ma xoolal ma ko ba xam amul benn col waay ji may mu de dana liggéey yu def foofu dëgg la mais dañ ci jéem a xam rek dama xamul ci dëru lu bari est-ce que damaa xaw naaj quoi xam nga looloo tax bàyyi ma teg sa loxo taw waaw coow jubul jox ma deux ba 2000 déplacé bi moo tax quoi ndax daa am fu may dem xam nga. mille euh, téeméer gi nii après bu ñu paree ma jox la euh, kii 1500. ma jublu ci quoi mbaa soriwul. non rek. coolu ñu dem ñëwaat. jaajëf waay garaaw. waay sa waay de gain su gaawoon gain ma dal ci 250 su ma teel moom yàlla gi. loolu mu waaw xam nga yàgg tuuti gisuma noonu tàll yi pour dem nii sax dëgg la dëgg xam rek booy dañuy naaje yow quoi gan ah ci wàllu booy nii waaw booy waay nii dëgg la booy waay nii sa mécanicien rek teel a yeewu rek yeewu gis nga de bagage baa ngi nii kii daal waaw riyaas moom rafet na kii sama waay wuy ma impec kii jarul daal impec waaw mais wuy ma normal de la de faw nga jënd faw nga war ko échec loolu de moom ah. loolu la kay léegi dama bëggoon ñu mun ko war maanaam nga dem bu fële tournoi jéem a xool régime bi affaire yooyu noonu ak a yi quoi da nga métti quoi kii xool jarul essayé déggoo ma 15 jours laa ko war. déggoo ma benn mu doon ko kong la def. soo gis jaay naan baax na nii la mel dafa rafet rek yow dafa nangu dafa moom. non xam nga sax ma du yàgg dañuy def benn nii rek coolu. am benn problème grave. Ah? dégg lu ma neex rek nga booy bi yéeg ci xam nga moom su waree dina ma mën a expliquer lu nekk ci guddi bi yëpp. am benn problème mais fa nga fi garantie quand

waaj. Eh, si noonu la jàmm. sa waaj de xoolal jaanu yi tourné bi dama tàllal loxo. dëgg la dëgg la daaw na woon day tourné waat nii ñëwaat. Ah. sinon nag. waaw sant nii rek. sa waaj yi dëbbal naa la ko de. nga ni. wax naa moom de. aywa yow affaire yu garage yooyu nga may jaay ngeen war a bàyyi boo yéen. ah bu amee eh, waaj yi ma yow avant nga ñëw nañu moom yow xam loo si am dem essayé dëgg la moom laa si am mais jàppale naa la ci de ni nga doonee tamit mécanicien noonu tamit laa doonee tamit mécanicien xam nga gën la say jàppale gën a wax moom tamit xam nga. waaw maa ngi lay dégg mais sa grand moom yaa gën a de. jaaxal na ma quoi. allo. maa ngi lay xaar sa place bu la woowee ba léegi pour man dinaa la fekk maa ngi ci buntu taxaw boo yéexee ma dem de waaw bi dafa soofaay. sama grand ban waaye sama waaj bàyyi li ngay def waaye nag danga ñëw jox ma bàyyi sama lekk kii sama grand de. eh defal naa nga naan du sama grand eh, li nga wax mooy lan. waaw. da nga ne kii du sa grand. yow kii ñëw rom ma man may xëy di liggéey ma scooter bi danaa ma sa grand. Eh, sama grand de bàyyi eh, sama waaj defal naa moo wax yow damay déglu nga su ma damay déglu yaa ngi ñëw fii grand bi ñëw taxaw man la kii mooy sa booy nga ne waaw nga nangu ba pare nga bëgg ma diggee lii. gars yi new ma la mooy maay booyam de. a ne ma mu ne ma teg dëlle waaw da nga yàqamti nag waaw da nga yàqamti waaw da nga yàqamti yow ma la wooyee ba léegi bi may ñëw ci oto bi moo sori mais maa lay seen ngay kurti kurti dafa diise waaw yow yow ñaa mënoon gis ak moom ma yow lu ne daj di waaw mooy cinq ma maye ko dox de dafa diis nag est-ce que VXR la de ah kii moom gain kon jarul ma yox prix ah. def amul benn problème kii moom da ngay bàyyi rek ma jox la cent quinze mille. cent lan. cent quinze mille. waaye ma ca noonu waa yow lan mooy cent quinze mille franc. waaw ah, mais fii si yow cent quinze mille. yow maa ngi naan lu mu dee dee tey dinaa laal benn trois cent mille nga ma cent quinze mille franc. waaw yow cent quinze mille franc la. xam nga ni ñuy liggéeyee lii du ma def xaalis bu bari dèjà dama war a changer carénage xam nga jéem a wàccee pot bi ndax dañ lay kii ci dimanche bi laa ko jéem a futti. ma ca fii amoo looy changer xam nga lan la yaa ngi dégg kii fi ma ko doon waxaalee pour mu leer fi ma ko lijjantee di waxaale ah. cent deux cent cinquante mille la ma wax. ci kaw yow ma ñëw waaw defal ndànk léegi xam na la sama digganteeg yow quoi coow ma cent cinquante mille la ma cent cinquante mille day bëri pour ñu déggoo gàtt ma jox la quatre vingt dix. defal taal damay dem sama yoon waa ma da taal. boo paasee fii bu ma waa dina te tey dimanche bi ma sonal dina yee ma. sama fii doo jënd kii jaay la ko moo ma gënal ma dem di ko jaay ñoom ñoom ñoom ma ñoon wala yenn gars yi nga xam duñ fay prix. waaye dama lay wax ma amul wala

xoolal 49 500. waaw mu manqué 500 nga naan 50 000 xaalis bii nii du xaalis Sénégal da nga koy dem ut ku la ko wecci quoi boo ko weccee ko 20 000 lay doon après ngoon nga jaar gàlle ma jox la li ci des quoi. ñaata mooy des. 15 000. 15 15 000 waaw. 15500 45000 moo nekk fi. waaw ok yaa ngi dégg te nag kaay ma xamal la ma ca bor yaa ngi bëgg a bëri de. ah comme nan. keroog gaz bi ñaata nga ma dese. 1500. ah 1500. waaw warga yi. warga yi 2000 la. 2000 francs. waaw ah ak ak ak. col yi. voilà col yi ñaata. est que yaa ngi koy bind que yaa ngi koy am naa kay loolu lépp am problème boo jaaree gàlla ñu ak 15500 yi waaw am benn problème xam lan laay bañ sama diggante ak yow plainte na yàlla moom laa lay mujj toll mais wuy ma fu bañ kii bañul fenn sama waaj eh temps xamante nañu fu bañ golf rek lay bañ golf lay bañ ah, ok baa ma ni dem kaas ba jënd ndox non danga ko teel a changé waay booy. waaw yëngal man si daan bi fii laa juddoo fii laa yoroo. waay sa waay ma déglu ma rek defal nànk defal nànk rek. man sama liggéey laa am da nga may déglu laa eh, loo waaw da nga may déglu nga noppi. yow rakk nga soxla ma alalu kenn. waa ji ñëw fii gàncax suba teel gi taxuma saagam bii gàncax maanaam ay nangam sangam. defal naa ma waaye damay waxal man ma yow waaye lan la police nga def lan la ban police sama liggéey laa am gën a gën ci jaar